compétition baa ngi noonu ndeysaan arbitre bi sifflé na dox ci diggante Fatick ak Diourbel ñu nga jàppante si waat nañ bi jeex na fàqat am na ñaari capitaine ku nekk ngi toog ci nen booy fay Doudou Sané ñoom ñaari capitaine ku ci nekk bii mooy sa premier combat ci compétition bi mbot am na ñaari xale yi duñu may dara ndeysaan lu leen di tàqale lu leen di tàqale dañoo tolloo doole dañoo tolloo gabarit dañoo tolloo macha allah ñoom ñaar ñu ngi noonu. Ndaysaan xoolal Doudou Sané ma nga na yàgg Boy Faye noonu daw na plaqué bañ na ñoom ñaar ku ci nekk boo sañoon tey sa mbër daan compétition bi ubbeeku ci yow boo amee trois victoire génn nga. boo amee trois défaites ñàkk nga par équipe bi équipe bu dakaar dem na final ndaysaan xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu ndaysaan ña ngay wane seen bopp daan na wala déet daa déet ña ngay bi xale yaa ngay bëree ndànk ndeysaan ndànk ndànk ndeysaan ndànk ndànk xale yaa ngi noonu ci compétition bi ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu bu Dakar bi dem nañ ndaysaan qualifié nañ final ci kaw jël na ko jël dara amul dara amul waaye xale yi ñoo raw Konkor ndax wow entraîneur ba daa tiit jug na dugg na ci seen ko su toogal de avertissement pour Diourbel Diourbel soo bëree da ngay daanu soo bëreewul da ngay daanu te nga bëree balaa ngay daanu bëree ndax boo amee troisième avertissement da ñàkk Jurbel attaqué bëree temps bu jeexee nga ñàkk Jurbel bëreel actuellement bëre rek moo war bëreel entraîneur Fatick bi nee na ko daan wala déet da daan trois pi trois daan na ko wala daan na daan na daan na daan na ko daan na ko Fatick daan na Diourbel Fatick daan na Diourbel arbitre bi ngi sifflé deuxième combat demi-finale diggante Fatick ak Diourbel Fatick centre bleu Diourbel centre rouge mbokk yi ñu ngi noonu ci compétition bi ñoom ñaari xale yi Diourbel daw na jëli ko fàqat na ko bu bañ Fatick jëli na Diourbel lu ñuy def ndaysaan Fatick ak Diourbel ña noonu du yomb Fatick Diourbel deux day am wala un un lan mooy xew caxabal na ko ndeysaan Fatick Diourbel ña ngay bëre fàqatal arbitre bi sifflé na génn ngeen saako yi kaay leen avertissement Fatick arbitre bi sifflé waat na mbokk yi compétition baa ngi noonu dox ci diggante Fatick ak Diourbel ndeysaan ñaari xale yaa ngi lewaatoo ndeysaan jaw na jëli ko jëli na ko plaqué mbot yegg nañ suuf jargandalu nañu wàcc jéegaat wàcc escalier yi troisième étage mbot wala déet jàppante amul jàpp ngemb takk am na mbot mbot tegal sees daan na wala déet dara xewagul arbitre bi àtte na daa génn daa génn kaay leen bërewaat joxe am na arbitre siflewaat na ndaysaan ña nga noonu ndaysaan ña nga noonu di bëre Diourbel ak Fatick Diourbel Fatick ndaysaan Diourbel Fatick Diourbel Fatick Diourbel Fatick ñu ngi noonu ci bi ñoom ñaar a noonu Diourbel Fatick ndaysaan ñu daw na jëli ko Diourbel Fatick daw na jàppante génn na saaku yi deux wala deuxième avertissement pour Diourbel pour Fatick ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar baqat na ko daan na daan na daan na oh, oh. Diourbel am na oo. Fatick baax na. Gara lu xew. Gara lu xew chef lu xew. ah non non ñii moomuñu lamb ji. moomuñu lamb ji ñu commencé ba léegi ils sont en train de faire des incantations euh, sur la table technique c'est pas normal il faut un minimum de respect. Ah. lan moo léegi lan lan mooy solution. non je sais pas je ne com non mais nit ki da nga koy bàyyi mu def liggéey noo waree booy def réclamation nga def réclamation booy bind réserve nga bind mais doo ñëw table yi accueillir ko nii c'est pas responsable te lamb ji ah. ayca ndeysaan ndeysaan kilifa gi. sama tucal la ne sama président. waaw waaw bisimilah père. ayca ñëwal am na loo xam ne duñ ko nangu. daa am loo xam ne duñ ko nangu. Abou Assef moo compétit 86 kilos pour Diourbel. mu dem ba dernier moment am blessure ñu indi euh, benn goor benn booy boo xam ne il est de Marlooj pour mu remplacer ko doo am loo xam ne du yoon duñ ko nangu. Sitor moo ñëw ñë moo ñëw ne booy bi qualifié wul ba ñu éliminé ko ñu ñëwaat bu booy bi bër ndax lan booy bi qualifié wul qualifié wul deful compétition Abou Assef moo def compétition deful sélection Abou Assef moo def sélection waaw. jaajëf. dox ci demi-finale bi diggante Fatick. ak jurbel daw na jëli ko Fatick Diourbel Diourbel ceinture rouge Fatick ceinture bleu jàppante nañ wañaar wëñ wéela takk xalab sànni nee na wa kaay waay bandi karata mi de waaw waaw ndeysaan ndeysaan Mandi 40 ans jël ko jël nañ ko daan na daan na ko wala déet lu xew eh daan na ko de eh daan na ko de première action bi sit am na wala déet eh eh eh Diourbel Fatick Diourbel Fatick Diourbel Fatick Diourbel Fatick arbitre bi atte na arbitre bi atte na arbitre bi atte na action bu njëkk ba sit amul ah sama gaay yi arbitre bi sifle waat na nañ leen dem xool dakaar ak Fatick ndaysaan Fatick ceinture rouge ceinture bleu Fatick Diourbel ceinture rouge ñoom ñaar a ngi noonu coow nar naa am ci demi-finale bi calculer ndaysaan vingt trois heures dix neuf minutes fii ci stade bu Diourbel kàggu seen stade bu nu mu tudd sama xarit ba kenn du moom ndaysaan jàppante nañ faqan daan na ko bandi quarante ans deux Diourbel un oh. ndaysaan ay ca arbitre bi sifflé na Diourbel jaxabal am na Diourbel Fatick Diourbel ceinture rouge Fatick bleu Diourbel Fatick mbot daan na daan na finaal dem na final Fatick dem na final ci kaw Diourbel Fatick éliminé Diourbel éliminé Diourbel éliminé Diourbel éliminé arbitre bi sifflé na mbokk yi ndaysaan ñaari capitaine yee ngi noonu plus de cent kilos dox ci diggante Boy Faye ak Doudou Sané Diourbel Boy Faye Doudou Sané Fatick arbitre bi laaj na ay sixième demi-finale drapeau chef de l'État Diourbel éliminé nañu ko Fatick moo ko éliminé ñu ngi noonu ci plus de cent kilos yi dox ci diggante Boy fay ak Doudou Sané dañoo nar a bëre Doudou Sané fàqan na ko Boy bañ wuy si ñoom ñaar doole doxul jàmm wara déet Boy Faye Doudou Sané Doudou Sané jàpp na bopp bi Boy Faye Doudou Sané avertissement disqualifié disqualifié disqualifié ndaysaan nee na dañuy reyante ndaysaan Doudou Sané Boy Faye Doudou Sané nee na dama am doole nee na dama am doole nee na fit bi day maas Doudou Sané ma nga noonu ndeysaan mbokk yi